ñu def ko euh dañ koy tàmbalee ci mu jëmmi bopp rek euh di wax sax ni euh du loo xam ni eh, war na ndax nekk ci kanamu sa sëriñ mel ni kuy soññee loolu dina dis lool ndax sëriñ bi dafa waxoon ci nax ju xadaa il ni wa kunna la sayxika maytan wadia bayna yadayhi xaasilitan tafia ab taalibe bu nekkee ci kanamu sëriñam dafa war a mel ni ab néew bu ni sànq te kenn ku ne xam na ni ab néew moom du du ni nii lañ may sange du ni fii lañ may jëmale xanaa kay dañuy wax ni rek le Cheikh Ibrahima Fall waxoon ni ndigal caabi bu yéesee du ubbi bu bu ëppee du ubbi xanaa kon rek ñu jàppee ko ndigal te sëriñ bi wax na ni laa tafaxalu shay bi xayri is fal isnu sartun fi xabooli saxani bu leen def dara ci dul ndigal te ndigal eh, ab sart la ci ñu nangu sa jëf kon xanaa ñu jàppee ko ndigal rek waaye soññe bi du weesu li nga xam ne si moo dox sunu digganteeg sëriñ bi te képp koo xayante ne si jaayante nga ak moom ni ab taalibe nga la nga xam si mooy ab taalibe wax na ko mu leer ndax dafa wax ni isil muridu la yuridu abada xayra rida rahmani aysu xasada am murid mooy koo xam ni doo nam dara lu dul ngërëmal yàlla lépp lu muy sàkku rek lam cay sàkku mooy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla nag li maye moy wan ginnaw aduna wan ginnaw seytaane wan wan ginnaw sa bakkan wan ginnaw sa banex ñenti non yoy nga xayanteen si kep ko xayanteen si danga nga ngërëmul ngeumul yalla ño mëna dox sa digënté nga am ko li yek wono leen ginnaw jaayante euh, deggmal sëriñ bi do mucc ci ñoom ko kep ko xam si ci ñoom rek wala wono leen ginnaw rek sa murit wala sa taalibe mën naa lu bari mën na caa sikk te ñoom ñooy ka ko cay sikkal kenn ku nekk xam na ni doomu aadama bi bi mu ñëwee ci adduna daf fee indi mbalaan mu weex tàll mel ni perkaal dara takku ci mu war koo delloo mu melaat na mu meloon kenn ku nekk xam na ni nag nit bu demee ca marché ba fekk fa perkaal mu meetar ko jënd ko dara tàqu ci mu yóbbu ko këram lépp lu ca taq moo ko ca def doomu aadama nag dafa mel ni mbalaan moomu rek kon nag li nga xamante ne si mooy eh, li koy taqal mooy kabair mooy ay bakkaar bakkaar nag am na lu ñuy wax al ci yàlla musal ñaar fukk la yoo xamante ne si sëñ Tuubaa wax na leen ni képp ko xamante ne si def nga ci benn bu sawara doon ab dëkk bu ñuy dem am daamar ju ca jëm dugg nga ca ba ca dugg nga ca euh, fa ñuy wecc ko ay wecc ko foo paas dagg place dara desalu lu lu euh, daamar ja départ rek yóbbaale la kon ñaar yooyu nag ñaar fukki bàkkaar yooyu nag moom la ñuy wax kabairul xaasir moom bokk na ca mooy jëw ak sàcc ak rey nit ak njaalo ak daw ci xare ak dogoog sa ñaari way képp koo xamante nag yaa ngi moytu yu mag yooyu yaa ngi moytu yu ndaw yi sa xel du xalaat wala laal jege yu mag ya képp koo xamante ne sii nag moytuwoo bakkaar yu ndaw yi ah, doo moytu bakkaar yu ndaw yi kon danga nga ca bakkaar yu moy mag yi képp koo xam ne si bëgg ngaa àgg ci àgg ci mucc ci bakkaar yu mag yi faw bakkaar yu ndaw yi yi nga xamante ne si yu ndaw ndawaan la nga di nga di ko moytu bu baax a baax waaye xeeb bakkaar Euh, jàpp ni bàkkaar bu ndaw la dina tax nga egg ci bàkkaar yoo xamante ni si benn boo ci def rek dagg nga paas bu sawara loolu loolu nag taalibi bu ci nekk war nga cee euh, góorgóorlu te itam Cheikh Abdou Lahad waxan na ni ëllëg yowmal xiyaam bu mboolem euh, gaay yàlla yi teewee mooy ñi nga xamante ni si dañ leen daan dénk jamono nee na kenn ku ci nekk da nga toog ñu woosaw tur bu fekkee ni lala sunu borom digaloon def nga ko na ko war a defee nee na nit ak jinne malaaka ñëpp dinañ la seere ñu di la yëkkati di la yëkkati di la tagg di la tagg ba ñëpp seen la waaye nee bu fekkee ni defoo la nga doon def nee des na la xas ak di la di la di la doyadal ba nga wax ni sama gàcce gi teggee woon foofa sax euh, dem sawara moom ma ko gënal nee na bu ñu àggee ci tudd sëriñ tudd sëriñ Tuubaa nee na moom du jóg ñi nga xam si ñoo ko yaakaar ñooy def la ñooña doon def di def la ñooña doon def di def la ñooña doon def ba am kàddu bu yëkkati ana koo xam ne sii ba ñu tuddee autorom ba léegi jógagut ñu ko yaakaar rek ñoo jóg di def la ñee doon def nee na loola mooy nee na féete sëñ Tuubaa fenn nee na képp koo xamante si féete woo ko foofa nag nee na nga xam ne moo la féete moo la fépp kon nag murit bu nekk war ngaa am jomi am fulay góorgóorlu ba ëllëg waxuma a tey sax waaye ëllëg yoo mën a fi am nga bokk ci ña féete sëriñ Tuubaa fenn والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته